combat la. petit combat combat la grand combat combat la. kii jaral mu fi tukki. amul benn problème man fa la. yokk cere dooli ñeex. kii jaral ma dem Pout. kii. barke Seydina Mohamed maa ngi waa jàmm gën si Kamba ñoo ànd ma. maa man maa doole barke sëñ Cheikh Fall. yaa mën. maa sañ-sañ gën a soxor. kii du max moom barke borom Touba kii du max moom. am su lu mu jugee moo waral sax kii ma jël ko mais ki du max moom te bu bës baa dinaa la wan ne yow doo dërëm maa la man maa la ëpp doole dinaa la jaay doole duma la daan la dakul la buy laa jóge de jigéen sax mm. day xeex bàyyi mm. loolu xel mm-hmm. da ngay sigi di ma xool balaa ma laa dóoram mbaj léegi su ma dóoram ma noq maa la man maa la ëpp doole fuuf maa la man maa la ëpp doole gën a reew fuuf mm-hmm. aca wuyu maa la gën a reew quatre-vingt-dix mm-hmm. dama lay ñuus par force parce que waaye mën nga ma sa driange bi ma lay xaw a rey waaw mais nice moo tax sa driange bi ma lay a da ngaa ngaris man amul benn problème ginaaru kokkali ponkali yi jaar di mbele leli ku xam xam doomu jaama gën ku xam xam doomu jaama gën tapet nga am na diis amoo dara jaama gën yow amoo dara jaama ay daw làqu ngeen ay daw ay daw ngoro mi tuddee ko sa bopp ay fëgal la ay daw làqu ngeen waxu soxor ngay wax yow tàppel nga amoo ma xool mbele leli rek man moom mën lay gis amul benn problème dina leer dina leer yow tàppet nga waxoo dëgg fenkat nga yow da ngay waxoo dëgg. ci insulte waxal rek waxal rek te bul saaga waxal rek. acca saaga ma de. Mhm. dama leen jox respect du ma saaga. Mhm, acca saaga du ma saaga mukk. acca du ma saaga si micro. Mhm. ñoo la daax wax fuuf lii rek nga mën simb. lii rek nga mën simb. dégg nga lim la wax nag nee na moo la ëpp doole moo la mën. amul benn problème ay moromam jaar nañ fi. ay moromam jaar nañ lii lañ doon wax. daa mel ni daf la mere nag. am man waaye man ku ma bëreel damay mere ku lekk sama avance. da ngay fanaanoo di ma mere. an bu ar bi ne par. sa mere da ngay jël tege ko nee. dégg nga lim la wax. bu baax. combat bi jaral na ko ba mu dem ba tukki. waaw naka jour combat bi na taxaw rek lu mu wax nii ay xeex yu mu wax nii nii. na taxaw jëfe ko. ah mu ngi sato de. ñaay tabale amuñu fit nu ma si gën a mel ngay def ay naan maa ngi sant sama yaay Alima Gaye maay caatam Alima Gaye maay caatam. Alima Gaye maay caatam. maa ngi nii est-ce que leen séddoo Alima est-ce que doo leen ko séddoo rek. déggoo ma de. Mhm. maay caatu maire bi Alima. Mhm. Alima mu nga tudd. waaw yaaju baax a noonu maa ngay sant di ko gërëm fëgaloo dégg nga lim la wax ne na mooy làmb ji lii rek la si am kii ginaaru kokkali la na mbele mbele ba bës ba bu ñëw tëdd kii du moom barki Serigne Cheikh Fall borom digal kii du moom kii li ma liggéey xajul si kawam fëgale nag mu mel ne da nga wóolu sa bopp ci combat bi muy wax benn affaire muy wax waxu xeex mhm. xam naa leen ay tapet lañ lañuy yooru mais diw naa ko bu mu fees boo ñëwee ma génn def la noonu tànk yi doole man sama tàng amul doole man diw ma dara mhm. jour ba rek la ñuy xam ne diw naa wala diw ma amul benn problème man booy laa kii moom mag fuuf booy bu ndaw booy bu ndaw fuuf maa sama caatu yaay barki yonent yàlla Muhammad kii bu dee kii bu dee moo ma mag kii bu dee man maa ko mag yàlla na ko yàlla may ndam bu dee man maa ko mag yàlla na ko yàlla may ndam kon may wax chaque jour rek booy laa nee na combat bi yoru nga ci yaakaar day waalo waalo bilaay walaay di sant waa Diamaguène bu baax a baax di leen bu baax di sant waa Dionewar ma jugee maa leen sant bu baax ku si mel ni imaam ku si ak soxnaam waaw. dem nga voyagé nga moom tam dem na Dionewar de. Eh, ñun ñëpp ñuy béggee adduna ñuy béggee ñun ay Baay Faal lañ doo dégg ñu naan neex ñëpp saf ñëpp ñooy nii dégg nga boo xar neex ñëpp saf ñëpp ñooy nii voilà jaama gën ki ma fa tuddee sama bopp dama koy sant di ko gërëm fëgg la taalibe sëñ Saaliw kooku damay am combat mu yëkkati xaalis bu bëri ay cinq cent mille di ko may kon turandoo boobu jar na ko mais kii turam bi muy turam bi mu bi mu tuddee boppam. doomu jàmm waaw moom xeeñoo ko xam nga dafa xeeñoo ko. ci mhm. ay 4 4 kaar lay am ay yooyu noonu xam nga parce que amoo mbamba lamb xamulaa yow lamb xamulaa grand baa boo ko bëree eh, eh. yàlla déggoo ma de kii déggoo ma de kii fu ñuy bëree man maa ko moom man maa ngi mbër foo njëkk a bëre kii fu bëree man maa ko moom ku mu fa bëreel ngay daanu arène nationale six combats la am cinq victoire benn défaite yow trois combats nga am maa la may sens yow dama lay may sens instant yi barki Seydina Mohamed boo xoolee amul kase waxoo dëgg yow waxu soxor rek ngay wax. te waxul soxor ngay wax. Mm-hmm. acca woote leen man maa ëpp doole. doole. lébu sa kaw nga war kon faalaw mooy lébu man maa lijjanti lébu. faalaw lébu yi waaw yow yow faalaw ngor faalaw ma la. waxatal faalaw yow faalaw. woote woote wooteel acca wooteel wooteel. boy maa a woy téeméeri junne yoon barki alaaji Fallou acca woote leen ma mel ni ma mel ni déggoo jeegu Faris bi jeegu Faris bàyyi nañu gisoo ma ni ma mel dama am taat am doole yow ginnaaru kooku nga. acca woote leen woote leen. naa la dóor dóor metti. woote leen woote leen. yow di nga xeex di nga xeex. di nga xeex. déglu ko xaaral xaaral. waaw. léegi gars yi dañ nga bàyyi fii. sama ménage yaa ngi may dégg Abdoulaye Ndiaye. nañ ko fi bàyyi. nañ ko fi bàyyi léegi gars yi. yéen journaliste yi da nga ne ndax di nga xeex yaw waxal si loolu. Seydina wala bis bi laaj. dama ne ndax di nga xeex laa laaj. eh tontu ma ma dóor ko ba rey yow di nga xeex yow. déggoo ma de man ngay wax keesu néew laa indi keesu néew stade keesu néew laa indi stade ñii ñoo ñëw pour ñu jël dama ne nga xool ma man xool ma fii waaye tapet nga rek yow man ma xool sax amoo fit une minute doo ma ko xool yaa amuloo sóob barki Serigne Bamba maa ma doole amoo fit tapet nga lii rek ngeen mën ay simb yi seen simb yi rek ngeen mën seen simb yi dul seen simb yi mënoo leen ko seen simb dëgg la gaañ yow yaa ngi si ginnaaw barrière yi toogal foofu ginaaru kookali nga famille bi noonu lañ mel ginaaru kookali nga yow yaa ngi si ginnaaw côté mobilisation mobilisation ñu ngi koy waaj Ngor Waxaam Yoff Almadi Tarawo fukki penc ñaar yëpp waa Fass ñëpp ñu ngi oo ñëpp yee rawatina waa waaw lébu gi askanu lébu ñu ngi woo ñëpp ñun ay lébu lañ nee dégg kii kii njëkk fa bëre waa waa waa waa waa déglu Mara déglu ma maa tax nga bëre grand combat déglu ma ah déglu ma fekk na léegi ma door la mbaj barki Serigne Bamba wooteel wooteel wooteel non mbéj du fi am yoon parce que for pertu pertu na nga fi pertu na nga fi acca wooteel wooteel barki alxuraanu karim laa la wax xam Mbëndour laa lay tese ne Mbëndour laa lay tese la 31 laa lay tese su ma la ba nga ñibbi ngay soogaan tese wa tese yow mënoo doomu jàmmagen woo bu ko laal bu ko laal acca bu leen laal dañuy signé dañuy signé dañuy signé yow mënoo acca woote leen gaaw dama taxaw sa place dama ba pare dañuy woo parrain bi dañuy woo parrain bi wooteel gaaw. waaw di sant waa Diamaguène bu baax a baax di sant waa Thiel di sant bool-bool yëpp ku si mel ni sëñ Saliou Thiaw maa ngi koy woo si combat bi waaw di woo waa Diamaguène bu baax ku si mel ni Galas jeune talent maa ngi koy woo si combat bi ku si mel ni Grand Dior ah. ku si mel ni Bisou maa ngi leen di woo si combat bi. di woo autorité Diamaguène yëpp di jënd bolok yëpp maa ngi leen di woo di si woo Tarkindaa bi Siteu di woo Tarkindaa ñëpp jag saa waaloo waaye ay sa yu waaw ma jàpp gan gi defaral ko bu tur. incha allah rendez vous le 31. waaw yàlla baax wool parrain bi mu ñëw. wool parrain bi mu ñëw en attendant. Eh, yaakaar naa ne hmm? wooteel gaaw. waaw di woowaat rek di woo ni nga koy waxee DG bi daa moom bu ñëwee day jël 10 bolok daa doomu Farba Ngom ñu ngi koy woo si bés bi bu ñëwee day jël 10 bolok. Hmm. Mor borom Italie ñu ngi lay woo bu baax a baax Mor day jël 5 bolok. mais balaa loolu ñuy woo ñëpp ñoom Baye Boris Mama Gueye monsieur le maire Amadou Gueye ngor ku lim Dioum ñoom Karim Ndiaye ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi lim mhm. tamit di lim ñi ma àndal di woote nag jàmm fair play supporters yi ñun jàmm ku ñu xool xam na si jàmm lañ ne mhm. ñun ngor ay noobul lañ ñun si jàmm rek la ñuy dox di woo booy ma àndal muy tarkindaay ñoom Babou Gueye Abou Niasse Amet xama mooy loolu di woo gars yi suuf yaa may dégg tara Macky nag mooy loolu ki ñu tuddee drapeau bi ñu ngi koy woo bu waa Macky tara doomu nday Macky Sall waaw doomu nday Mame Fall ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax a baax. ba ah, xanaa da nga feebar yaa ngi voilà am affaire bi lan la nañ bàyyi affaire tarkindaay tarkindaay ñoo ngi jaama gën kan moo fi indi tarkindaay du sita jaama gën la yeewoo tarkindaay ñun ñooy tarkindaay di sant waa dóor ci matin bu baax a baax a baax a baax di sant Ouz Komé di ko woo si combat bi Bisu Fall maa ngi koy woowaat si combat bi waaw di woo Lamine maa ngi koy woo si combat bi Lamine Seras di woo waa jaama gën ñëpp bàyyi ma kenn fëgale fëgale mi yaramam tàng na. ayca Macky Tarakaay. pare bi. nag. waaw mais LP moom kenn mënu ko fay. parce que tuddee nañu làmb ñu delloowaat ko président Macky Sall. bon def na lu rafet. tey tey bon ñaari mbër yi nañ nañ def fair play. ku mën sa morom daan. Mm-hmm. après après danaa gis LP euh, ku ko daan euh, sawaay dina leen jox ba beneen ko combat. incha allah beneen beneen grand combat daal. waaye looy wax si si si LP. commandant mbër yëpp. Mhm. léegi daal maa ngi wax LP ko ñoom ñaari mbër yi ku daan. Mhm. mu jox ko beneen kii. incha allah. pare pare pare naa pour ànd ak ñaari mbër yi déglu leen pare bi nee na ñaar ku daan. promettre na la beneen combat boo xamante ni te LP moo koy tëgg tàcc leen loolu gars yi. te attention de ñaari mbëri ku daan. mën na la jox billet Angleterre. nee na ñaari mbëri tam ku daan mën na la jox billet Angleterre kon loolu yaakaar naa ne jar na jar na raayante acca LP li ngay tëjee rek gaaw. waaw Maguette Aram yii nii daanaka.